وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى عليكم في آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخ الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافزين فروجهم والحافزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi tey leen ndokkeel ci weer wi nu génn ak wi dugg muy weeru ngàmm yi nga xam ne ci lañ nekk di siyaare bu baax a baax di siyaare it waa Lamp Fall FM di ñaanal sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké yàlla yàggal ko fi di ñaan yàlla yàggal ko fi ah, da mel ne da ñëw fii ci daara yi sëriñ Malick Dieng tey sëriñ Malick Dieng nag mi ngi jógee woon Guyar dëkk bu ñuy wax Guyaar ca euh, arrondissement Ñaaxeen commune rurale Mbayeen département Tivaouane di laxas di laxas ba ñëw njaareem ci sëñ Mor Mbaye Cissé 1956 la ñëw sëñ Mor kër sëñ Mor Mbaye Cissé yàlla dogal 1972 nag ci la sanc fii Daara ji ci ndigalul si Mouhamadou Moussa Bassir ah ndigalul sëñ Abdoulaye ak sëñ Mor Mbaye Cissé fii ak dëkk bi ay tool a ngi fi mu sanc fi 1972 ci la sama rakk ji mu sëñ Xaadim ci la ci at moomu ci la gane jamono bu ko sañcee it ànd ak yi ñu ko sëñ Mor boole ñu ñëw ci daara ji sanc ko def ci ay néegi ñax ak i ak i sàkket nekk ci di di di di fi jàngale alxuraan ñi nga xam ne yàlla dogal na yi ñu njëkk fee mu njëkk leen a alxuraan ndax ba mu nekkee kër sëñ Mor la leen joxoon sëñ Basiré taawub sëñ Mor Basiré ci la bokk ak sëñ Mouhamadou Dem moo nelaw barki dem di doomu sëñ Abdourahim Dem ak euh, ab jarbaara bu ñuy wax Cheikh Gadiaga nga xam ne ñoom bi mu nekkee ci daara ji ba yàlla dogal mu mu mu mu soxla ay téere ak ak yeneen yum soxla mu ne woon day naweti naweti ci ci géej ji fa si asaa si géej ji mi ngi ci ginnaaw ndindi foofu si si asaa fa la demoon nawet ji fa nawet ji fa euh, nawet fa daf leen yóbbaale woon ca daara jooje ñooñu na ñoom fekkoon na nag am na ñoo xam ne moom ñooñu it moom la yorandoo waaye ñooñu moom la amoon ndigalul sëñ Mor jox leen ndigal mu yóbbaale leen wax nañ ne bi yàlla dogalee sax mu jaar sëñ Fallou bu ko sëñ gisee mu ànd ak doomi sëñ Mor dana kii de sëñ Mor ne ni mu yewoo daf ne Mor de ni mu yewoo ndax xam na ne Malick mi bu ko bëriwutoon ak doomam danaa yàlla dogalee mu ñëw nag dellu si nag ci la sañ ci fii nag nekk fi di jàngalee alxuraan euh, bari na ñoo xam ne jàng jaar nañ fi it noonu nga ko waxee ndax njabootu Serigne Fallilou am na ñu fi jaar ndax Serigne Abdou mu nelaw daaw di dem Serigne Fallilou fi la jàngee. sëñ Modou Diop ma Samba fi la jànge sëñ Seexunaam euh, sëñ Fallou fi la jànge sëñ Mbàkkeem sëñ Fallou fi la jànge waaw bari na doomi sëñ Fallou jànge ak sëñ Modou si jànge it adi woon na fi ak Seex fi la jànge euh, ak sëñ Fallou euh, sëñ Fallou Karadiba moom sëñ Modou bu si jàng ak sëñ Ahmad jaar na fi moom sax éggale wu fi sëñ Baaram sëñ Abdou Fara it taw bi fi la jànge bari na daal ñi fi jànge ci sëñ Abdou Lahat yi andi woon na fi doomam sëñ Bass Mbàkke sëñ soxna bi ñaari doomam jàng nañ muy ba sëñ Baara bari na ñoo xam ne soit fii jàngee ci daara ji ci euh, fépp nag ci dëkk yëpp ndax euh, am na ku fi mas a bindee kaamil am fukki at ak ñett xam ne fii la jàng te bindee kaamil ba am te ñett ba jox ko yóbbu ko teewaawoon jox ko Alaaji Abdulaay ba Alaaji Abdulaay di ko wax ci gàmmu ga sax naa tey de am nañ lu yéeme ndax am na koo xam ne si jabar gi la bokk jàng alxuraan bu bindul kaamil te am fukki at ak ñett la am te fii ci daara ji la ko jàngee woon la koo koy jóge woon ñëw fi ñu di ko wax Pape Samb doomi kon daal loolu moom mooy mooy mooy li nga xam ne maanaam euh, kii bi mu sañjee it bi yàlla dogalee mu sanc fii dafa nekkoon ay ay ne ay doom lañ ci moom muy sëñ Basirou Diak mi ak sëñ Omar Sylla sëñ Ablaye joxoon ko ko joxoon ko sëñ Mor mu jox ko ko ak sëñ Mor Fall sëñ Abdourahim dem joxoon ko ko ak sëñ Abdoulaye Diak moom itam mu gàddaayoon ñëw fi sëñ Fallou Dara bi moom itam ginnaawam la fi la la la fi nekk ba sa bañ sanc fi daal di juróom-ñaari daara ak sëñ Moussa Gueye Mbodj mi nga xam ne moom moo yor daara yu Baye Mbodj ñëpp fi lañ jaar do fi lañ nekkoon doon doon doon doon sàkku daal ba sanc ay daara yor kooku ne am na ko yor Cheikh Mbacke ci ëppoon nag moom dañ yar bi jàngale alxuraan jàng mi ak yar bi loolu moo taxoon ñu doon ko wax li ci ëppoon doon soo ma koy bàyyi bàyyi loo xel xale yi ñu bàyyi ko xel maanaam jàng mi ak yar bi loolu moo waraloon li ci ëpp ñu ñu nit woon ko daal waaw ndax ñaare ku fi ma saa jóge boo ak ku jóge ci yéen bu bu bokkee bàyyi ñaare kee la muy nangul baayam kii du ko nangul ba tax na ñu bari doon ko tàmm di ko seen doom waaw waaw ak jàng xam-xam ak jàng bind yi waaw dañ ciy jàng bind yi ay kaamil waaw ak boor yar waaw. waaw ku mokkal da ngay bind doog a dem waaw. waaw ban waxtu la ñuy maanaam ci fajar gi bu dee ci suba gi moom ci jël gi ñeenti waxtu lañuy ñuy tàmbali ba 6 heures ñu wàcc waaw bu ñu jàngee waxtu tàmbali téye leen ba 6 heures muy waxtu ñu noppi daal di daal di wàcc daal di dallu ba 8 heures ñu tàmbaliwaat waaw bu 8 heures ñu tàmbaliwaat bu 11 heures ñu tàmbali téyele 11 heures bu léeg-léeg ngay ba tisbaar fekk la léeg-léeg waaw ñi njëkk téyel moom dañ teel a dem waaye léeg-léeg ngay téyele ba tisbaar fekk la waaw bu dee ngoon gi 3 euh, heures la ñuy tàmbali 15 ci la ñuy tàmbali ba 6 heures bu 6 heures tasante ñu téyele doxal daal di wàcc waaw bu timis jotee bu julee Euh, jàng ba ba ba ba jullikee rek 9 heures 10 heures ñu wàcc daal di dallu ba ba jëlaat waaw. waaw lu nag euh, amul at nag léeg-léeg nit def fi euh, juróom-ñetti at fukki at léeg-léeg def nit fi def fi at a genn wàll mokkal kii at a genn wàll la fi def mokkal waaw waaw kii toog nii at a genn wàll la fi def mokkal. waaw te waaw. waaw ci xel mi rek wax waaw waaw. waaw li li nga xam ne mooy li li war a war ci ab julit ab julit moom doomam. dafa war a jiital ci moom euh, alxuraan ndax loolu la euh, yonent bi digle loolu la borom xam-xam yi digle euh, maanaam ñu jiitu ñu jiitu woon saalihu salaf loolu lañ jiite kilifa yu baax yi muy sëñ Tuubaa loolu la digle jiital alxuraan ci ab dënnam ba noppi doog koo xamal leneen loolu dafa gën waaw ndax xol bu xol bu alxuraan jiital risaale mi ngi wax ne xol bu alxuraan jiital moom lañ gën a yaakaar aw yiw waaw kon loolu moom ñu ngi ci soññe bu baax jiital alxuraan duñ naan nag duñ jàng tubaab duñ jàng leneen mën nañ koo jàng waaw ndax exemple rek laa jox man sama taaw moo ko day jàng xam day jàng tubaab fii ne déwén lay allah waaw am na ñeneen ñoo xam ne jàng moo ko laa alxuraan ñu ngi jàng am naa waaw kon loolu loolu du loolu waaw Sénégal ñu gisee daara. Hmm. a soxla daara ah, moom xam naa ah, man daal gëmmoo loolu man man daal li ma gëm mooy ne ci lu baax bala baax fekk la ah. am naa ay plan yu ñuy teg nag ñoom intéressé man du ma tudd dem sax du ma tudd dem ci réunion yooyu sax man du ma ca dem waaw ma fekk ma sama daara may jàngale. ñu ne ma dootoo jàngale man du ma dem du ma ci yoon du ma ci dem loolu moom boolewuma ci sama bopp man ndax modernisation daara euh, maa man li ma bëggoon mooy kenn ku ne la nga yor nga saytu ko waaw ah, ndax ñoom li ñu yor daf leen a ëpp dama koy wax toujours ne leen volontaire ak vacataire lu ko andi ñàkk a man volontaire ak vacataire lan moo ko andi ñàkk a man looloo am fépp li ma leen wax ci daara yi li ne ci daara moo nekk fépp waaw ah, gouvernement day def day def day euh, di ko yaakaar du ko am sëriñ bi noonu keneen noonu keneen noonu ah bu dee sëriñ bi di laaj addi di laaj ñaar téeméer ñaar fukk ak juróom-ñett ah lu mu bëgg a def la lu mu kii loolu rek am ci daara daara loolu rek a ci am loo bëgg te amu ko rek loolu moo ci am waaw waaye man ah, ah, affaire motorisation yooyu moom man ah, du ma ci dem sax du ma ci dem yàlla dogal na nag dugg naa ci ba xool. ah. waaw. loolu moom xam naa jurit moom ab jurit la woon asgor la woon ab taalibi la woon loolu moom li ñuy doon doon doon ci moom mën nañ koo seeri ci moom julit gi danaa la ko waxal maanaam ba muy def daa jàkka booba ay ay la defoon def ko ci biir jàkka ci biir kër gi booba joxagul ko penc bi def ko seng du mu jàkk mu def ko seng mu mu jàkk mu tax bu ko tabax jàkkee ji defoon na ci lu mat fukki million te boobu mi ngi dëkk ci néegi ñax waa këram dëkk ci néegi seng waaw loolu moom firnde taalibe gi nag moom yi danaa la ci firndeel dara euh, dafa am lu muy wax ci ci wàllu falu sëñ Fallou bi mooy wax ji bi muy ñaanal waa kër sëñ Fallou bi dafa wax ne nga def leen ñu àndale te bañ di wute bu kenn def ci ñoom lu tax muy fuute daal ne bëgg du bëgg bañ bukk place bu bër ma laa leen dalal ci sama xol ngir war ma mu ne doomi sëñ Fallou yi place sëñ Tuubaa bi teg leen fi mu leen teg loolu ku du doo ko man mënoo a ñu jëflante bi mu doon jëflante waa njabootu sëñ Tuubaa gi fi newoon it daan da wax nañ ne daan na def sax maanaam bu joxe waa dépense sax lu ci des mu ne nañ ko jox sëñ Modou Mbacke nañ jox sëñ diw sañ jox sëñ diw daal ko séddale njabootu sëñ Tuubaa gi fi nekkoon euh, balaa sukkaay it ci ndab ñu sukk waaw balaa sukkaay ci ndab da leen di woo ban raxas sukk mu doog a sukk rafetal ok euh, li mu doon jëflante dëkkandoo yi it euh, sëñ Makhtar Diop imam euh, bu Jurbel wax na ma ne ma bi mu fi nekkee nee na bu daa bojjlu booba ñu néew fi dëkk sax waaye bu daa andiwaat wu di ko bojjlu danaa ko wëral ma kër yi ba xetax bi xetax bi kii ba duggut seen kër yi wëral ma leen waaw wëral ma waaw bu dee dikk mu ne ko loo def mu ne ko dama laaj mu ne ko waroon a laaj da ngaa waroon toog ba xam xetax ba dugg na fa am dugg fa bu fa duggee nga gis ko nga ñëw wax ma bu ko defee ñu bàyyi ba beneen bis loolu ci euh, fonk dëkkandoo euh, eggoon na ci moom foofu waaw. waaw ba bi muy dem Ndakaaru ñu di ko yóbbu muy muy faju ji sëñ Moutalaam sëñ Soxna mi mu doon jàngal di ko jàngalal boppam dafa santaane nee na juróomi si koy yi ñu koy téyal bu mu ko bàyyi. waaw ba nekk na Ndakaaru di yóbbandi yóbbandi na ñaari nit seen la fa waaye yóbbandi na ñaari nit ci ci kam ko loon ngir loolu. ngir mu loolu nga ndax fonk mu fonk jàng alxuraan jàng jàngale rek la fonkoon ci loolu rek la newoon waaw. mille neuf cent quatre-vingt-trois euh, au 10 août 1983 la fi jógee la fi bàyyi ko 10 mai 10 mai 10 mai 10 mai 1983 ci la fi jógee waaw euh, ca Touba Touba lañ ko denc waaw fi tolloog maam Cheikh Ibrahima Fall rek ci kanam sëñ Mayacine Oumy way juróom sëñ foofu lañ ko denc mel tamit ñi jaar ci daara ji ay jàmbaar lañ ginnaaw bu ñu jugee ci seen liggéey ndax loolu dañ koy nemmeeku saa su nekk. waaw la danay am danay am moom ndax bari na ci euh, euh, ñu fi jàng ñoo xam ne ñu ngi Europe ba ay ay ay imaam lañ fa am na ñoo xam ne ñu ngi Amérique ay imaam lañ fa ay représentant xalif général des mourides lañ fa euh, lu bari ci diine dañ ko fay def bu dee ci réew mi it bari nañ ñu bari ñu ne ci ay jumaa jumaa yoo xam ne ni da da ngay da ngay dem ci jumaa yu bari nga xam ne imaam ya fii lañ bàyyi ko euh, nga gis ay daara yu bari yoo xam ne ña ngay jàngale alxuraan ña ngay jàngale alxuraan ñu bari dafa moom da nga koy gis moom lu bëree bëri budul loolu lu waaw lu bëree bëri sax da koy gis waaw. waaw di soññee rek ci li nu euh, nekk muy alxuraan ñi ci nekk nañ ci nekk te yàlla tax waaw euh, lu leen ci fekk ñu ñu sante ko yàlla lu ñu amul yi ñu xam ne Euh, euh, doomu aadama moom faaw muy muy am lum lum tële lum lum lum ñàkk bu dee comme man di doon daa am lum ñàkk waaw ndax euh, dama leen dama koy wax toujours rek dama koy wax toujours léeg-léeg ci jara yi may wax man leen gis ngeen ko Macky Sall fi ne deuxième mandat rek la bëgg am na koo xam ne moom wutu Macky Sall rek la bëgg ah kon loolu mooy wane ne toujours yaa ngi bëgg loo amut doomu aadama loolu dama koy wax joxe exemple rek doomu aadama ci boppam toujours mi ngi bëgg lu mu amut loolu nag bu mu daal tax a bàyyi lu baax la nga nekk. di dem di seeti leneen wala ngay eh, eh, leneen ñun nag ñun njàngale alxuraan yàlla ku ñu jàppale ki way jur ju sant la jàpp danañ la defal sa doom loo xam ne nii danañ la taxaw sa doom loo xam ne nii moom nga xam ne la ñu defal fayu ko waaw dañuy jàngale ngir yàlla lu nu waay jàppale nit sama doom ji ne daaw bañ mu génn ñu ne la nangam nag xaw nga def ko jàpp ci jàpp ci li li muy li muy li muy jëfandikoo waaw ñu ci nag ñu ngi koy def ñu ëpp ñu jàppale maa ngi ñu ngi jàppale daara ji maa ngi beral cant cant gu wér boo xam ne ma koy beral koo xam ne ay doom dafay nekk muy sëñ Saa Ndigal Seen waaw borom njàmbur siin ndax lu bëree bari bi fi ay doomam nekkee léegi wàcce na ma ko ci daara ji di ma ci jàppale waaw euh, te jàppale gu wér la boo xam ne ma koy beral cant di di ko di ko seeral ñëpp it nag waaw di ko seeral ñëpp waaw képp ku si digg rajo bi euh, ji moom mi ngi koy sant ndax daara ji lu bu sumb mu jàpp ca jàppin woo xam ne ni dana day yéeme sax ñoo ngi koy sant te di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi waaw ñu ko ñaanal suñu toll yàlla yàggal ko fi di ñaanal ñëpp nag waaw waaye moom itam nag ñëpp ñu bari ñuy jàppale waaye moom ni mu jërañee ko kenn defu ko nag moo tax it dana am loo danañ ko gërëm loo xam ne ni loo xam ne gërëmuñ ko kenn wax fa dëgg yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 wa bil yawmil aaxiri wa maa hum bi mu'miniin yuxaadi'uuna Allaaha wallaziina aamanuu wa maa yuxaadi'uuna illaa anfusahum wa maa yash'uruun